jërë ngeen jëf mbokk yi nga xam ne yéen a ngi topp ci 24actu point com am nañu mbégte àndaat ak yéen tey ji nag ñu ñëw euh, seet si euh, doyen Youssouf Babou dañ koy bàyyi mu nuyoo euh, présenté wu ak ñi nga xam ne xëy na xamuñu ko bu ko defee rek ñu dugg ci waxtaan bi ak ponk yu bari yoo xam ne fas yéene nañ ko waxtaanee rawatina loo xam ne soxal na réew mi ak li nga xam ne nag moo di dëkk bile di Mbàkke doyen ñu ngi lay nuyu ma bàyyi la nga nuyoo ak ñi lay topp ci 24actu. maa ngi leen di <clears throat> nuyu di leen sargal euh, di nuyu mbokki Mbàkke euh, maanaam di rafetlu lool maanaam tànn gi ngeen ma tànn ngir moo waxtaan ci seen rajo bi euh, loolu lépp dégg wax dëgg yàlla daf may daf may yëkkati ci kaw moo tax daal ak lu ma mën rek sant leen te fas yéene daal lépp loo xam ne wax naa wax naa ko fi muy ak dëgg goo xam ne gii dañ ci mën a nit duut baaraam ndax man tàmmuma di jël sama nawle eh, di ko duural di ko waxal loo xam ne defu ko ndax yàgg naa yëngu ci politique bi man maa ngi fi ñëw en 65 boobu ba tey maa ngi teg sama tànk fi ma ko teg te gisuguma kenn koo xam ne kii nee nga ma yaa ma fi wax lii te mu am ay jeexital ndax nag euh, yàgg naa fi bëri naa ba tàyyi ci biirum politique waaye man sama politique dafa bokkul ak yenn politique yi maanaam nekkuma maanaam di ma maxar yàpp ay politiciens wala may wut xaalis ci politique man politique ni ma gisee mooy defar sa dëkk moom laa gisee politique man waaw. soo baabu waaw man ma maa ngi doon nekkoon fii di jàngale école euh, de laa jàngale jóge école de. Euh, dem inspection départementale nekk fa responsable départemental de l'alphabétisation nekk naa fi également njiitu syndicat unique et démocratique des anciens du Sénégal Sud-Est pendant au moins trente ans moo nekk le secrétaire général ci wàllu politique na moom maa ngi nekkoon parti de l'indépendance et du travail bu Amath Dansokho maa ngi koy ñaanal en passant nekk naa fa ma secrétaire exécutif local pendant au moins eh, dix ans ma parti bi fii ci Mbacké nekk membre du comité central loolu daal mooy samay jaar-jaar ci gàttal daal. xam naa dañuy tàmbali rek euh, laataa ñuy dugg dëgg-dëgg ci waxtaan bi ak euh, kenn koo xam ne Sénégal xam na ko ndax liggéey bu nga xam ne defal na ko Sénégal muy Cheikh Anta yow it nekk koo xam ne xam nga ko baax ndax euh, mën nga ñëw dikkalaat ci relation yi nga xam ne amoon nga ko ak Cheikh waaw Cheikh Anta man sama mbokk la. Euh, ni mu nekk sama mbokk itam mooy euh, soxna Maguette jóob mi waajuram bu jigéen ak soxna Faat Diop Masamba mi ñu sama rakk bi ci man ñàcc bokk ndey ak bàyyi ñoom ñaar soxna Maguette soxna fa mooy waajur jigéenu Cheikh Anta soxna Faat Diop moom nekk ab tantaam bi bokk ndey ak bàyyi maanaam soxna Faat Diop Masamba moom sama rakk jigéen ju ju topp ñas ci man noonu lañ demee Cheikh Anta koo xam laa maanaam dama daan dem saa su ne fële Dakar sa bureau ba euh, carbone ñu fay waxtaan ci suñu parti sama RND laa nekkoon daa jëkk a nekk ñu ciy waxtaan moo ci laaj ay xalaat di ma wax parti bi nu mu taxawee Mbàkke moo ci jox ay ndigal kon koo xam lool laa muy nag koo xam ne kii moom looy mën a wax ku bëgg réewum la ndax xam-xam bëgg réewum moo tax moom daanaka dafa torox ba faatu ñaari dërëm yor ko ku xamul li nga Cheikh Anta Diop mi ngi ne àddina ak li ci biiram man ah ak xam-xam bi amoon yëpp gis que moom xam-xam moom daa ko wécceeg dara man dem na këram ba tey ay ba tey Cheikh Anta boo demee këram fauteuil yu xottiku nga koy fekk ay fauteuil yu xottiku kenn boo duggee ci néeg bi da kiiru kii du benn bis am na ay américains yu ñëwoon di ko laaj mu ñu dem fële ci kii ba euh, nu mu wa euh, euh, moo ni dañoo ñëw di soxla Cheikh Anta Diop fekk buntu ubbi ko nii ñu ne Cheikh Anta Diop ba nga ne mu ne man waxuma kere Cheikh Anta Diop laa wax <laughs> ñu ne ñu xanaa laaju Cheikh Anta Diop ko ma Ah. parce que ni mu meloon. ak waaw waaw ñu ne ci mooy sax mhm. mu mu ne. mu dem. Mhm. gaa yi ko yow lu tax ngay rey sa bopp fi yow. Mhm. te mën a rouler sur des milliards. boo fekkee nangoon nga américain dem NASA. dañuy dafa fay peer xam ne kii. saa waay nga ci dund ba dee. toro torox lu tax nga nga nga ñëw fii. mu ne man sama réew ma gën bu ne. waaw. bu euh, bu ñuul bi mu doon ak ni ko fonkee. der bu ñuul la fonk. thèse am sax ci labordination en agriculture mooy thèse bi mu ne thèse doctorat mm-hmm. bi mu ko jëkkee passé mm-hmm. ay français dañ ko agressé mm-hmm. bu ñu ko agressé en tout cas da nga àlol léegi àlol da nga àlol mu euh, maanaam directeur de thèse un raciste mu daal di euh, euh, arrêté Cheikh maanaam maanaam maanaam délivré diplôme ndax Cheikh thèse yi mu doon défendre day remettre en cause thèse yi nga xam ne dañu naan tubaab bi fi gën mu hégémonie tubaab yi ko yoro yooyu thèse racine yi la Cheikh daan dagg hmm. moo tax tubaab yi ba dañu ko bañoon hmm. waaw dañu def ko hmm. bi muy defee deuxième fois thèse u nation agriculture ci la door a jàll tubaab yi nag jommi ñun kii xamul nu ñu koy def kii itam xamul doon dem na congrès Caire tous les savants du monde ñu dem te gars yi dañoo convoqué tous les savants du monde au Caire ñu def benn symposium symposium boobu la aussi ci mbir mi la la la aju woon national agriculture Cheikh Anta démontré par A plus B nit ku ñuul mu jiitu nit ku weex ci àddina kaa a sama mu nit ku ñuul mu jiitu nit ku weex ah dëgg la mm-hmm. loolu Cheikh Anta ko bind na ko livre itam aussi également waaw ni mu fonkee woon làkk làkk wolof. làkk wolof. Mm-hmm. loolu foofu la fa laa jëm si man daanaka man boo dee wax bu ma la wax dëgg. Mm-hmm. man wolof yi ma xaw a yéemi tuuti. Mm-hmm. man ci diggante Cheikh Anta Diop ak sama baay laa ko jàngee. Cheikh Anta bu la waxa waxaa rek da nga da nga da nga da nga da ngay da ngay jaaxle. courant ak ak dawaan. ak dawaan la tudd courant. waaw xam nga xam nga dawaan mooy luy da luy daw dawaan xam nga aan boobu maanaam suffixe aan ci ci wolof mooy tontu luy luy wéy di daw xam nga ak dawaan doxaan xam nga doxaan lu mu tekki doxaan ci dox la jóge kuy dox di dox rek mooy doxaan xam nga woyaan kuy jóg kuy dox di woy rek mooy woyaan aan loolu tekki ci wolof maanaam suffixe aan loolu tekki day noonu noonu ah Cheikh moo ko wax da doon nañu débattre également ci maanaam euh, atom am atom boo ko dee tekk ci atom atome ah, atome mooy loo xam ne lii substance boo xam ne kenn mënu koo xar waaye ba da ngay dégg ñu la ñu ñu ñu ne ñu ne l'atome est insécable yooyu jamono foofu débat tollu woon ñu dem a dem ba jamono wane ne. atome boobu si substance atome boobu mën nañ koo xar ñu war a waxtaan nag ni ban tur lañ ko wutal lañ ko dogal xam nga il faut ñu dogal tur dogal tur tur lañ ko war a dogal ñëpp naan nañ ci bàyyi euh, mu tëddi dawaan. lu ñu mënta xar quoi. Mm-hmm. da ko tuddoon moom xaree ful la lees mënta xar. Mm-hmm. Ah, mooy xaree ful ñuy dem nag boo ba maanaam atome ñu science wane ni mën nañ ko xar. Mhm. ñu ne nañ ko wutal tur nag. mu tuddee ko xaree ful. non de moom xaree ful la ñu ko wutul. xaree ful lu ma lees mënta xar daal. léegi nag ñu mhm. xaree fuloon la tudd lu ñu ma lu xar. te léegi ñu xar ko mu ni xaraa fuloon lay tudd xaree fuloon. mais xaree ful baax baaxatul xaree fuloon mhm. lay tudd. waaw loolu loolu la Cheikh Anta euh, wax. Cheikh Anta dafa nekk koo xam ne kii mi wax naan benn waxam benn waxam mu ni euh, toujours ci bi thèse 3 bi daal di leen rek thèse 3 bi mhm. mu ni kii dafa fàtte affaire lu mu ko waxee mhm. la structure du cerveau humain mhm. est rigoureusement la même chez tout les homo sapiens qu'ils soient noirs jaunes ou tout le reste nekk une question d' éducation et de formation loolu la tontu ko ñoom ay Lévi Brul ak ñoom euh, euh, ñoom ñooy théoriciens colonialistes yi. mu tontu leen ko ne neen mooy la. ma jàppee sama dër bu ñuul bi. wala sama karaw gu baramu gi. ndax dër bu ñuul ak karaw gu bara karaw gu baramu. teewul amum xel taxaw dañaa ko dégg. xam loolu sëñ Tuubaa wax moom la Cheikh dox fii rek waaw. la la même chez tous les hommes sapiens. qu'ils ou jaunes. le reste n'est qu'une d'éducation loolu lépp voilà man amoon naa benn livre am si fondement économique et technique d'un fédéral africain moo wax naa ne euh, on ne la démocratie en langue nationale xam nga démocratie mën na su def ci langue nationale ndax démocratie boo ko dee toj de mos maanaam voix de Dieu dégg nga mooy la de de de de Dieu mun leen nag démocratie moom mënees ko wax. ci làkk ci ci ci ci ci ci tubaab waaw mënees ko wax ci mënees ko wax ci wolof bu ñu ko waxee ci wolof li muy tekki mooy baatu mbooloo waaw te mënoo def démocratie te wéeroo ko ci baatu mbooloo xam nga. kon kon il faut bu nit ñi jàngul seen wolof ba makkal ko léegi démocratie mu mu ndax il faut balaa démocratie am jàng wi dangay jàng ay wolof. ba mu mokkol ko dégg ñuy ñuy liggéey ci réew mi ay wolof waaye fi mu nekk boo boo tey réew mi boo ko daggoon téeméeri cër ah fukki cër yëpp tubaab lañu dégg quatre-vingt-dix pour cent yi dégguñu ñu tubaab ay wolof lañu dégg ak yeneen làkk moom réew ñoo fa mën tabaxee démocratie mhm. te jaaree ko ci làkk yooyu loolu Cheikh Anta wax te loolu euh, lu lu lu nekk la mhm. dafa mën sa dem euh, benn kii du sati ndaje ah, non déedéet euh, ah, ah, dafa bëgg a wax assemblée nationale nii mm-hmm. xam ngeen ni lii nga xam ne moo daal réew yu africain yi mm-hmm. du jàmm mm-hmm. sànja dëgg mu loolu mu ni da ngay xool ministre bu Sénégal bu demee gane ji ministre en kii Gambie dañuy doxalee ab làppatoo maanaam mooy interprète seen diggante ministre bi Sénégal bi yàq tubaab lappatoo ko di ko tekk ci ah, ci anglais. ministre bi wax ci anglais. Mhm. lappatoo bi di ko tekki ci français. Mhm. te mu ni te mu ni kat ku ni sa morom dama ni kenn ki ni ko ah.